di ko baaganteloo cave tribunal commissariat ak gendarmerie bi nga xamee ne loolu yëpp am na le juge finalement bi mu jàkkaarloo ak moom le juge d'instruction euh, bi ñu ko wanee ay preuves euh, notamment benn vidéo boo xam ne wane na bi ñu koy jàpp mu sukkandiku ci ne lii mënuma ko ci téye mënuma ci suivre le procureur ndax lii ma gis jarul ñu ci def mandat de dépôt ñu jox ko liberté provisoire euh, fan yi ñu génn ñu gis ne le procureur dafa encore saisir cour d'appel pour casser cette verdict ce verdict nous euh, renvoyait délibéré bi euh, malheureusement le juge top le procureur et infirmer la décision de nga xam liberté provisoire décerner encore une mandat de dépôt euh, day wane abi abi bi nga xamantene bi bii euh, ministère de la justice mi ngi koy def té ñun au niveau de plateforme de la plateforme F24 en tout cas au niveau de Yanamar a marre li ñu ciy gis moy ay procédures bayon yi nga xamné état yu bari dañ koy ubbi euh, jëmale ko ci ay défenseurs jëmale ko ci ay militants yo xam dañu nekk dans l'espace public di xex procédure bayon yoy wala poursuite bayon yooyu li ñu ci jublu moy fexé ba ñu nekk ci espace bi di taxawal askan bi di wax wax di ñaxtu di critiquer le gouvernement duñ ko mëna té def ñuy dem ci ay procédures nekk di justifié wu ci loo xamante ne bi amul beneen njariñ beneen bi ñu ci jàpp mooy njort nañ ne vendetta la maanaam benn revanche la boo xamante ne bi régime Macky Sall daf koy amal jëmale ko ci plateforme yi nga xamante ne bi wala kuréel yi nga xamante ne bi dañoo porté woon candidature dañu porté woon non à la troisième candidature te ku ne xam na ne F24 amoon ci taxawaay bu amoon am solo te leader yi nga xamante ne bi doon nañu taxawu ci ay euh, ci plateforme boobu ñu mun ci nemmeeku Aliou Sané donc jàpp nañ ne tey venge la vengeance le traque le bu ñu jëmale ci ci ci ces personnalités de la société civile ñu koy dénoncer encore une fois te di ko metti li te jàpp ne loolu mënul jëmale suñu réew fenn ci moment bi nga xamante bi dañu soxla jàmm dañu soxla tranquillité ñu ngi wo encore une fois le gouvernement mu dal té am yeneen priorité yu mu ubbi suñu ndaw yaa ngi dee ci géej gi nous, fexe nu mobiliser la justice nous mobiliser les institutions de notre république pour apporter une réponse Nous gën traquer des militants nous gën traquer des citoyens parti bi ñu ñu moy parti bi nga xamné dañuy exiger en tout cas la libération de Pape Abdoulaye Touré ak ñeneen ñepp nga xamné ne nañ leen wala tëj nañ leen te ñu lal ko ci politique kessé ndax suñu ñëwaaté rek ci kaw Pape Abdoulaye Touré comme ni ma koy faral di waxee amana dañ ñu doon junju suñu wàññiwul suñu tànk wala ñu reculer ni moom la ñuy mujjee ci naka noonu gannaaw bañ ko dóoree toroxal ko damm loxowam damm tànkam toj boppam xoj ko pompe ko ba pare wëlbatiku moom mi ñu def loolu yëpp ñu tëj ko ci kaso mais dafa am ya nga ay ay ay ay ay pièces yoo xam ne dañ ko génne uniquement pour mën a tiital ñi nga xam ne ñu ngi jéem a résister te ci pièces yooyu ñu génne gis nañ fi ay photo yo xamné ne génn na di woné ni dañ koo maltraité maltraité malmené ko wayé so leen sétlo ci suñu sortie yu mujj yi wax nañu né amna vidéo bi nga xamné ñom seen jëmu bopp ñoko ko ko filmé moom moment biñ koy torturer mu ci wo un certain chef sow vidéo bobu ñu ngi ciy wane ña nga xamné ne ko doon torturer té vidéo bobu ba légui mi ngi ak ñun waaye dañu ne woon kat vidéo bobu nañ ko téye ñu waxtaan ak ñoom ci njëkk su ko defee ñu mën ko libérer parce que ñëpp xam nañ ni place am du kaso du demande boobu ñu dugaloon pour liberté provisoire ci demande boobu pièce à conviction biñ fa dugalaale mooy vidéo boobu foogoon nañ ni le procureur dina protéger ay éléments wam bàyyi ko moom mu génn pour mu mën a continuer faju wam waaye ci kaw loolu dafa rejeter demande de liberté provisoire bien avant sax ñu koy rejeter dañoo gaawantu ci kaawam teel a dindi ay plateau pour gëmloo nit ñi ni amaana damuloon sax ba loolu moo ko causé benn chute bi nga xam ne daanaka ci la ci baat bi amee problème ba ñu mujj koo fekk mais ci kaw loolu bu ñu fàtte di wax ni bu ñu fàtte di fàttali nit ñi ni dañ ko traumatisé day tëdd ba xaaju guddi di yuuxu ka mu bokkal chambre moo koy wax day tëdd ba xaaju guddi seen violence yooyu muy ñëwaat ci boppam saa su nekk du barki démb dañ ko yóbbu woon hôpital psychiatrique bu caaro yi

waaye sañu ñoo wax ci kaawam te du ñu tudd yeneen cas yi nga xam ne daj nañu lu ni mel wala ñu tëj leen injustement parce que nit amul lu gën a précieux que temps te temps bi ngay xañ nit ki liberté wam boobu nga koy xaj tëj ko ci kaso gi te defut waxul tinul ku ci mel ni tey Aliou Sané ci yan base nga ko mën a jàppe tey indi na ay preuve preuve nga laaj mu indi ay preuve ni ñu koy jiiñ amul pour lan nga jëlaat ko di ko delloo ci kaso bi ku mel ni Fatou Fall mi nga xam ne muy Falla Fleur dugaloon na demande de liberté provisoire ñu bañal ko ko barki Dembo Ndiaye ci ban base lañ ko jàppee sous des flagrant délits. la nañ leen àtte mais détournement de procédure boobu pour lan day wone une certaine achar un certain acharnement ci ñi nga xam ne ñoom porteur de voix D'ailleurs, ku ci mel ni kaawu euh, ñi nga xam euh, Anita moo leen moo leen moo leen moo leen boole te amu ci preuve ñu jàpp leen tëj ku ci mel Ernest ci ban base na ko ñeneen ak ñeneen ñooñu fadilu kayta noonu professeur Cheikh Omar Diagne noonu Karim Gueye noonu soo doon lim doo fi jóge nga duggaat dans les régions ci biir régions yi ba léegi ñu ngi jàpp nit ñi ci suuf te kenn du ko wax pour lan loolu day wone acharnement bi nga xam ne nguur gi mi ngi koy amal ci ñi nga xam ne ñoom ñooy porteur de voix ku ci mel ni suñu président dafa ne kat deful troisième mandat ok waaye dafa ne dinaa rëkkandiku képp koo xam ne yow yaa ma poussé à ce que ma renoncer à sama candidature te loolu du jàll

ci ñu wax kook ñàkk koo wax lu nekk ñu ngi ko fay dégg tey jii dama ne ñiy xeex pour homosexualité sax foog ñuy bàyyi xel yenn yi parce que dafa am ay facteurs yoo xam ne moo koy gën a indi ci réew mi parce que pas plus tard que la semaine passée ñu ngi wax ni kat am na ci manifestants yi ñoo xam ne tey jii nii subir nañu viol ci biir kaso yi te ñuy ay góor ay moroomu góor teg leen ko bëgguñu sax di wax bay mën a toucher benn sensibilité bi mais loolu yëpp mi ngi fay xew te waxuñu ko am na ñoo xam ne tey ñu ngi ci coma ndax lan dañoo am crise d'asthme ñu war leen assister assister wuñ leen parce que tout simplement dañoo bokkoon ci li ñu wax nee nañu dañoo bokkoon ci manifestants. yi te ba léegi indiwuñu ay preuve yu wane ni ñooñu war nañ leen a mën a téye muy ay cas yoo xam ne suñ ko fi doon yaatal duñ ko mën a mais en tout cas di lancer un appel à képp koo xam ne devenir réew mi ñor na la pour nga taxaw temb ngir ñu mën a xeex loolu te duñu fàtte saa su nekk di exiger leur libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques amul diw fii la bokk amul diw fii la la bokk di leen jaajëfal bu baax ci teewlu bi